noo ngi sant. borom ñu boole sëriñ bi. moom mi ne boole sëriñ bi. ñu ngi sant sëriñ bi. di sant sëriñ bu baax. muy sunu lépp tey ak mu yor sunu tey ak ëllëg. muy sunu sunu lépp lépp tey ak sunu lépp tey ak ëllëg. moom. moom. xew-xew bi bu dellu see ci noonu. bu dellu see ci noonu. xew-xew bi bu dellu see ci noonu. xew-xew bu dellu soo ci nun fàttali rek la. fàttali rek la. borom bis bii. borom bis bii. lu mu am. li lu mu lu mu am. lu mu am. ngëm moo ko ko may. ngëm moo ko ko may. dafa teel a xam. li suñu borom wax. li suñu borom wax. wala xad karam naa bani aadama. wala xad karam naa bani aadama. da koo teel a dégg lool. da koo teel a dégg lool. waaye moo xam ne lépp. waaye moo xam ne lépp. ci ngëm lay mën a dunde. ci lay mën a dunde. ci lay mën a sottee. ci lay mën a sottee. moo tax. moo tax. bisam bisam bu rëy bii. bisam bu rëy bii. ak xéewal yi ci yi ci yi ci jóge. ak xéewal yi ci jóge. ngëm rek ko may. ngëm rek ko may. kon. mu ne kon. dafa mel ne kon xamal nanu. dafa mel ni kon xamal nanu. li ci am solo. li ci am solo. sunu sunu diggante sunu borom. sunu diggante ak sunu borom. kon war nanoo xa xalaataat bu baax a baax a baax. kon war noo xalaataat bu baax a baax a baax. wala gëstuwaat bu baax a baax ngëm. wala gëstuwaat bu baax a baax ngëm. war caa def suñu yitte jëpp. war caa def suñu yitte jëpp. Eh, lépp lu naqari ci suñu bopp. lépp lu naqari ci suñu bopp. wala mu naqari su diggante suñu borom. wala mu naqari suñu diggante ak suñu borom. ngëm gaa des. ngëm gaa des rek. ngëm bu amee. ngëm bu amee. topp rek cee tegu. topp rek cee tege. ak wattandiku tere. ak wattandiku tere. bañ li yàlla suñu borom bañ ci jaam ci ci jaamam. bañ li yàlla bañ ci ay jaamam. li yàlla bañ li yàlla bañ ci aw jaamam. bañ li yàlla bañ ci aw jaamam aw jaamam. bëgg ci aw jaamam ci aw jaamam kon mu ne kon lu xewati lu xewati ngëm gee des rek ngëm gee des rek lislaam lislaam yàgg na lool yàgg na lool yàgg na noonu yàgg na lool yàgg na noonu yàgg na lool yàgg na lool te gannaaw bu sang bu baax ba ba mu wanee ba mu liggéey ba woon woon gannaaw sang bu baax ba ba mu liggéey ba woon gannaaw jaam yi bu gàtt ci diir bu gàtt lépp soppiku lépp soppiku te dara waralu ko dara waralu ko ngëm gu de fekk la ngëm kon mu kon kenn ku ne ci nun kenn ku ne nun na dellu ci boppam. na dellu ci boppam. seet diggante moom ngëmam. seet diggante moom ngëmam. lu lu mat a def yitte la. lu mat a def yitte la. ndax fu fu jamono ma sa toll. fu jamono ma sa toll. yàqu yooyu yàqu yàqu yooyu yëpp. yàqu-yàqu yëpp. mi ngi jóge rek ci ñàkk gëm. mi ngi jóge rek ci ñàkk gëm. kon balaa dara sotti. kon balaa dara sotti. dañu gëm. dañu gëm. dëgg-dëgg ngëm. dëgg-dëgg ngëm. bu hadis boo waxee ne. bu hadis boo waxee ne. am benn benn ku gëm. amul kenn ku gëm. kuy sàcc. kuy sàcc. des fois su ma mu nekk mu am mu am ngëm. ci waxtu woowu nekk booba amoon ngëm ak kuy def beneen safaan ak ak kuy def beneen safaan dafay mel ne ngëm ngaa wérut booba day mel mel ne ngëm nga wérut kon nanu dellu ci suñu bopp kon nanu dellu ci suñu bopp gën a góorgóorlu bu baax a baax gën a baax a baax te nun tawfeex ju rëy am ndax nun tawfeex ju rëy ji nu am. muy am gën am sëriñ bi. am gën a am sëriñ bi. lépp nga ci biir. lépp nga ci biir. dafa mel ne ngëm. dafa mel ne ngëm. boo ko boo dee seet sëriñ bi. boo seetee sëriñ bi. moom daf koo indaale. moom da koo indaale. ci tolluwaayam yëpp. ci tolluwaay mi yépp jëfe ko ba mu mat sëkk jëfe ko ba mu mat sëkk gannaaw coobare sa borom ji def ci moom gannaaw coobare sa borom mu def ci moom jëfi ngëmam rek la jëfi ngëmam rek moom rek la moom rek la wér kon noonu góorgóorlu bu baax bu baax a baax lu dal lu dal ngëm gi rek ngëm nga wérul rek ndax bu ngëm amee ndax bu ngëm amee jëf rek ci topp jëf rek ci topp yoo xam ne yoo xam ne yittee ca jiitu yittee ca jiitu comme kon gëm moom jëfe rek la kon gëm moom jëfe rek la ni ki nga xam ne xam-xam jëfe la li nga xam ne xam-xam jëfe la nga ma jiitu. nga ma jiitu. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. wax ji moom jarul guddal. jox ji nag jarul guddal. bu nu xamee ne. bu nu xamee ne. ba ba lislaam jógee ba léegi. ba lislaam jógee ba léegi. fi la yonent fi bàyyi woon alxuraan. fi la bàyyi woon alxuraan. fi borom xam-xam yi jëfe seen xam-xam. borom xam-xam yi jëfe yeneen yi jëfe seen xam-xam. def nañ lépp. def nañ lépp. te taxul mbooloo mi soppiku. te taxul mbooloo mi soppiku. te ñëpp itam kenn ku ne jàpp nga sa bopp ne ab jullit nga. te itam ñëpp kenn ku ne jàpp nga sa bopp ne ab jullit nga. jullit yi rek la ñuy wax. jullit yooyu la ñuy wax. te njullit bala moo wér. te njullit bala moo wér. ngëm dafa am. ngëm dafa am. bu nu xoolee ci sëriñ bi. bu nu xoolee ci sëriñ bi. gis ci lépp. gis ci lépp. gis ci njëriñeel ngëm. gis ci gis ci njëriñeel ngëm. nun mën nañoo bañ a am genn jaaxle. nun mën nañoo bañ genn jaaxle. ndax sëriñ bi. ndax sëriñ bi. jëf na lépp. jëf na lépp. jaar na fi ba nekkul musu nekk ci dara lu ci boroomam. musu nekk ci dara lu boroomam rek. loolu moom. loolu moom kon dëggal na eh, gën naa dëggal li ngëm di jariñ. gën naa dëggal li ngëm di jariñ. kon li ci des lépp. kon li ci des lépp. lu nu ci mën a naqari. lu ci mën a naqari. ngëm nga des nga des rek. bu ngëm amee nag. bu ngëm amee nag. yitte daal am. yitte daal am. Eh, càggante daldi di dàqu. càggante càggante daal di dàqu. kon. kon. ginnaaw ngëm. ginnaaw ngëm. baatu diine rek moo ci topp. baatu diine rek moo topp. kon nu góorgóorlu bu baax. kon nu góorgóorlu bu baax a baax. diine ji moo nu woon suñu digg ni ni ni suñu digg lim digal ak lim tere. daal lim bëgg lim bëgg ak lim bañ. ndax diine ji moo nu moo nu xamal bëgg ak lim lim bañ. li borom digle. li suñu borom digle. ak li mu tere. ak li mu tere. diine nu koo xamal. diine nu ko xamal diine koo xamal. xamal ni li suñu borom bëgg. xamal ne suñu borom bëgg. ak li mu bañ. kon diine. kon diine. muy dëgg. mooy dëgg. ginnaaw mënuñoo ñàkk eh, eh, ni ko suñu borom tënkee. kon mënuñoo ñàkk ni ko suñu borom tënkee. maanaam ni ko suñu borom tënkee. ni ko suñu borom tënkee. wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. loolu lépp a ngi ci biir. loolu lépp a ngi ci biir. jaamu rek fi sës moo ci sës. jaamu rek fi sës nag. def kem kàttan ci ni ñu ko digalee. def ko def ko kem kàttan ci nim ci nim nu ko digale daw suñu xiru bakkan ci nu ko teree daw dem dem daw suñu kem kàttan ci nim nim nu ko teree góorgóorlu bu baax di suñu yitte yëpp ci bëgg ci bëgg ci bëgg lu baax góorgóorlu bu baax suñu yitte ci bëgg bëgg lu baax ak di ko jëfe ak di ko jëfe góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax ci daw suñu xiru bakkan di daw suñu xiru bakkan li mu bañ ci li bañ suñu kem kàttan suñu kem nañu góorgóorlu bu baax. nañu góorgóorlu bu baax. bu ñu gisee doxeenu lislaam. suñu gisee doxeenu lislaam. ba agsi ci jamono jii. ba agsi ci jamono jii. nga xool jamono ji. nga xool jamono ji. nga xool jamono ji bu baax. xool jamono ji bu baax. setantal bu baax. setantal bu baax. Eh, eh, dafa mel ne li nu suñu borom dégg di di digal. dafa mel ne li nu suñu borom digal. newuñu ci. nekkuñu ci. la nag. dëgg la nag. suñu borom moom noppi na ci lépp. suñu borom moom noppi na ci lépp. bu nu seetee bu sëriñ bi. bu nu xoolee sëriñ bi. nii nu ko li nu li xam ci moom. li nu xam ci moom. weesuwul gëm boromam. weesuwul gëm boromam. di ko jaamu ci wàllu yëpp. di ko jaamu ci wàllu yëpp. fi ñu ko gisee ba mi ñu ko noppee gis. ba ni ko noppee gis. ci loolu rek la nekk. ci loolu rek la nekkoon. sëñ bi kenn du ko séen. sëñ bi nag kenn du ko séen. tere yaa fi. waaye nag ndigal ak tere yi ñu ngi fi. yàlla bëgg ngi fi. yàlla bëggam ngi. li bëgg ngi fi. a ngi fi. li bañ ngi fi. kon ginnaaw sëriñ bi moom matale na lépp. ginnaaw sëriñ bi moom matale na lépp. digle na lépp. lépp. wane na lépp. wane na lépp. bind na lépp. bind na lépp. kon lu ñàkk ñàkk ñàkk solo. kon lu ñàkk ñàkk ñàkk solo. war nañoo góorgóorlu. war nañoo góorgóorlu. bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax. ban ba ma ban ma mën a nekk ay jullit dëgg. bana mën a nekk ay jullit dëgg dëgg dëgg. di taalibe yu dëgg dëgg dëgg. di taalibe yu dëgg dëgg dëgg. ndax. ndax. nit mënut a toog loxoy neen. nit nit mënut a toog loxo yi neen. il faut mu nekk ci dara. il faut mu nekk ci dara. kon te dara amul lu njëriñ. te dara amul lu njëriñ. lu fonk suñu diine. fonk suñu diine rek. lu dara amul lu njëriñ. dara amul lu njëriñ. lu fonk suñu taalibe. lu fonk suñu taalibe. ak mooy def mooy mooy mooy defar lépp. lépp. ak taalibe mooy defar lépp mooy matal lépp. mooy rafetal lépp. mooy rafetal lépp. lépp. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. nanu xante woo doon kenn ku ne ci noonu. nanu xante woo kenn ku ne kenn ku ne ci noonu. nam doon ay jullit dëgg rek. nun nun doon ay jullit dëgg rek. nam kenn ku ne ci noonu. kenn ku ne ci noonu. na xante woo. na xante woo. doon doon jullit dëgg. doon jullit dëgg dëgg. doon taaliba dëgg. doon taaliba dëgg. foofu suñu gépp xëj na ci. suñu dund gépp xëj na ci. buñ ca nekkee. suñ ca nekkee. borom mëneesu ko neexut a jaamu. suñu borom neexut a jaamu. waaye suñu xel dana dal. waaye kon suñu xel dana dal. ci suñu bopp. ci suñu bopp. ak ak diggante. ak suñu diggante. ak lépp lu ñuy yëg gis. ak lépp loo xam ne yëg di ko gis. muy tey muy ëllëg. muy tey muy ëllëg. loolu mooy moom moom moo ci mën a dalal suñu xel. loolu moo ci mën daal dalal suñu xel. mën mën a dund dund ah, amal njëriñ. mooy mën moo tax mën a dund dund gu am gu nu amal njëriñ. ci àdduna si. ci àdduna si. te yaakaar dund gën a a gën a yiw te yaakaar dund gu gën a yëw ca àllaaxira ca àllaaxira nan góorgóorlu bu baax nan góorgóorlu lu baax ci li nu fi indi ci li nu fi indi jaamu rek moo tax mu bind nu jaamu yàlla rek moo tax mu bind nu andi nu andi nu fi di nu jaamuloo di nu kon nan góorgóorlu rek ci kon rek ci lim nu fi indee ci lim nu fi sax ci jaamu yàlla. sax ci jaamu yàlla. suñu kem kattan. suñu kem kattan. na mu gën a selle. na mu gën a selle. na mu gën a nañ ci gën a jafe suñu suñu yitte. nañ ci gën a jafe suñu yitte. buñ ci defee suñu yitte yëpp. suñ ci defee suñu yitte yëpp. du nu wàññi dara. du nu wàññi dara. ci kër kër yi adduna ji. ci kër kër yi adduna ji. ñun yittewoo suñu bopp yittewoo ko adduna. ñun yittewoo suñu bopp yittewoo ko adduna. buñ ko yittewoo suñu borom yittewoo ko diine. yittewoo suñu borom yittewoo ko diine. kon danañ am na naflaay tey ak ëllëg jaaxle du am jaaxle du am fitna du am du am ku ku ku kuy nattable loolu kuy kuy nattable loolu jërul ngay xool mbooloo mi ni ñu doxee jërul ngay xool mbooloo mi ni mu doxee yow da xool sa bopp rek yow da ngay xool sa bopp rek kenn ku ne bu xoolee boppam kenn ku ne bu xoolee boppam na ca loola na ca loola mbooloom jullit day daal am mbooloom jullit daal di am. mbooloom taalibe daal di am. lépp yéwén. lépp yéwén. benn ja jaaxle du am. benn jaaxle du am. diine mooy dëgg. diine mooy dëgg. kon nan góorgóorlu bu baax. bu baax. sëriñ bi wàccoo na ak noonu. sëriñ bi wàccoo na ak noonu. ni ko sunu borom bëggee. ni ko suñu borom bëggee. mu nekk ku ci mu nekk ku ci jaam yi. nekk ku ci jaam mu nekk ni mu ko bëggee mu war a nekk war nekk noonu ci jaam yi. ko bëggee war a nekk noonu ci jaam yi. sëñ bi wane na lépp. sëñ bi wane na lépp. dara desu dara desu kon nan góorgóorlu rek. kon nan góorgóorlu rek. wattandi kuy caaxaan. wattandi kuy caaxaan. caaxaan. caaxaan. amul te mu nekk ci lu dëgg. te mu wóor la ne nekk ci lu dëgg. caaxaan la caaxaan rek la. Euh, daal di wax ne bu euh, bu gëm suñu borom amee. daal gëm suñu borom amee. gëm alaxira am. gëm xaal am. ko mën doon. koo mën doon. il faut nga soppi wu doxin. il nga soppi wu doxin. waaye dëgg lay doon rek. waaye dëgg lay doon rek. gëm doon rek. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax. Eh, maa ngi sant ñëpp. noo noo ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm eh, kenn dara. nee na toppul kenn dara. waaye bal mm, na àq ñëpp ñëpp. nee na mi ngi balu àq ñëpp. di gën a mm, feeñal sama yéene ci mbooloo ci ci mbooloo mi. di gën a feeñal seen ci mbooloo mi. ñun ñëpp nañ bokk balonte yàq. ñun ñëpp nañ bokk balonte yàq. Mm, lii kaddu yi mu wax buñ ko buñ ca nekkee. mu ne kaddu yi mu buñ ca nekkee. kenn ci du topp morom ja dara. kenn ci ñun du topp morom ja dara. day ànd ak moom na mu war a ànd ak nan ànd ak ànd na mu war a ànd ak moom. moom ni mu war moom. kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci nun digg ma morom ja digg bu ne ci lii bu nekkee ci lii day ànd ak moromam na mu war moom day ànd a ànd ak moom dara dox ci diggante ba dara dox seen diggante lu dul aw yiw lu dul aw yiw ak dimbalante dimbalante dimbalante dimbalante wettilante wettilante soññante soññante loolu rek la ñu indi kon nag kon nag noonu nan balonte ak ñun ñëpp ñun balonte ak ñun ñëpp tey ku ne kenn ku ne mu jublu ci sa bopp. mu jublu ci sa bopp. na di wax ne. nun nun nun waa Kër Sëñ Touba. nun waa Kër Sëñ Touba. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu. dañuy joxe suñu bopp. waaye joxe suñu bopp gi. waaye joxe suñu bopp gi. képp dama di wax képp kuy joxe. képp kuy joxe. la ngay joxe. la ngay joxe. nay lu baax. nay lu baax. kon nanu nanu ji joxe suñu bopp gi. joxe suñu bopp gi. di jiital dafa jóg ci suñu bopp. jiital jóg ci suñu bopp. jéem a defar suñu bopp suñu kem kattan. jéem a defar suñu bopp kem suñu kattan. day tax nu gën koo mën a joxe. day gën nu gën ko mën a joxe. day tax nu gën koo mën a joxe. kon nañu góorgóorlu bu baax a baax kon nañu góorgóorlu bu baax a baax nañu góorgóorlu ci suñu bopp nañu góorgóorlu ci suñu bopp jéem a defar suñu bopp jéem a defar suñu jéem a jéem a defar suñu bopp mooy tax nu gën a mën a joxe suñu bopp mooy tax mu gën a mën a joxe suñu bopp nu gën a mën a joxe suñu bopp nu gën a mën a joxe suñu bopp te fekk nu gën xam ne lu baax la lu baax la bëgg a joxe te xam ne lu baax la nga bëgg a joxe waaye joxe sa bopp waaye joxe sa bopp nekk ci sa bopp. nekk ci sa bopp. nekk ci àdduna. nekk ci àdduna. loo neex mel. loo neex mel. waaw loo loo loo loo bëgg a defee defee ko. loo bëgg a defee defee ko. noo bëgg a mel mel mel na noonu. noo ko noo bëgg a mel mel na ni. loolu du du du andik defaru. loolu du andik defaru. te kon nan góorgóorlu rek. kon nan góorgóorlu rek. suñ kem kattan. kem suñ kattan. lii lépp moom. lii lépp. soññe rek la. soññe rek la. waaye suñu xel dal na bu baax. waaye suñu xel dal na bu baax a baax. suñu sëriñ bi. suñu sëriñ bi. mu war a def def na ko. lu mu war a def def na ko. te it eh, jekku na mbiram. te it jekku na mbiram. sàkk na ñoo xam ne. sàkk na ñoo xam ne. la mu bëgg. la mu bëgg. muy lu yàlla bëgg. muy lu yàlla bëgg. ña nga ca. ña nga ca. teg ci seen tànk. seen tànk. sama mbokk yi sama mbokk jullit yi kon sama mbokk jullit yi sama mbokk taalibe yi mbokk taalibe yi ku bokkul ci ñoo ku set sa bopp ku set sa bopp te bokkoo ci ñooña te bokkoo ci ñooña da ngay da ngay da ngay xemee ma bokk ci ñooña da ngay xemee ma bokk ci ñooña waa këram nga xam ne waa këram ñooña nga xam ne moo leen defar moo defar bañ mel na yàlla bëgg bañ mel na yàlla bëgg te seen seen jeexit ngi fi te seen i jeexit mi ngi fi am na ñu leen fi nekkal itam am na ñu leen fi nekkal it am na ñu fi nekk ñoo xam ne am na ñu fi nekk ñoo xam ne la sëñ bi bëgg rek ci lañ lañ bëgg rek ci lañ nekk mooy la yàlla bëgg mooy la yàlla bëgg ci wàll yëpp nag ci wàll yëpp nag kon nag sama maas gi nga xam ne kon nag sunu maas gi nga xam ne adduna xas xas nañu fëkk adduna xas nañu fëkk te mel na ne adduna adduna am na am na ci ñun doole lool te it mel na ne adduna am na ci ñun doole lool day day day day àgg foo xam ne day àgg foo xam ne dootoo tal yàlla. dootoo tal yàlla. dootoo tal bi. dootoo tal sëriñ bi. dootoo tal alaxira. dootoo tal alaxira. da ngay nekk ci sa bopp rek. da ngay nekk ci bopp rek. ne adduna ji rek. ne ci adduna ji rek. jox adduna jàpp ne li nga war a yittewoo yëpp mooy adduna. jàpp ne li nga war a yitte lépp yittewoo lépp mooy adduna. ak sa bopp ak sa bopp. fekk na gaay gaay gaayam yii mu fi bàyyi. fekk na gaay bii mu fi bàyyi. ku ci aw ci yoon wa ku ci aw ci yoon wa du ko yàqal dara yi addunaam du ko yàqal dara yi kon nag nan góorgóorlu xool ñooñu kon nag nan góorgóorlu ci xool ñooñee adduna ji niy wut adduna ji niy wut jëmale ko suñu bopp jëmale ko suñu bopp buñ dóoru góorgóorlu ci ci li ñu fi andi buñ góorgóorloo ci li ñu fi andi jaamu yàlla jàmm yàlla jàmm gu wér ca nañ nu ko digalee nañ nu ko teree ca nañ nu ko digalee ak ni ñu ko teree nañ nu ko bëggalee ak ni mu ko bëggalee kenn ku ne ci ñun kenn ku ne ci ñun yàlla suñu borom noppi cërim yàlla no ci noppi na ci lépp suñu borom noppi na ci lay cërim lay cërim lu mu rëy rëy rëy lu mu rëy rëy rëy fu mu nekk dana ko fekk fu mu nekk dana ko fekk kon bu mu ko yàqal ak jaamu yàlla kon bu mu ko yàqal ak jaamu yàlla bu mu ko yàqal xalaat digg ma boromam bu mu ko yàqal xalaat digg xalaat digg ma boromam bu mu ko yàqal yittewoo boromam bu mu ko yàqal yittewoo boromam ndax loolu leneen lu mu war a yittewoo. leneen lu mu war a yittewoo. ci boppam. ci boppam ak ci àdduna. ci àdduna suñ gannaaw suñu borom noppi na ci. gannaaw suñu borom noppi na ci. fu mu nekk dana ko dana ko fekk. fu mu nekk dana ko fekk. kon ni mu ko waxee rek la. comme kon ni mu ko waxee rek la. maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. jaamu yàlla rek. jaamu yàlla rek. moo tax mu bindu nu. moo tax mu bindu nu. andi nu fi. andi nu fi di nu jaamuloo. di nu jaamu ko. kon. kon. nanu nanu nanu nanu yéene suñu bopp jàmm nañu yéene suñu bopp jàmm. buñ ko defee rek. suñu ko defee rek. nekk ci lan war a nekk. nekk ci lan war a nekk. ak li adduna ji ñuy wut. adduna ji ñuy wut. moo ni daw da mooy daw fekk suñu dab dab nu. mooy daw dab nu. te duñu yàqal dara suñu diggante te duñu yàqal dara suñu diggante duñu yàqal dara suñu diggante alaxira duñu yàqal suñu diggante dara alaxira kon nag jërë ngeen jëf kon nag jërë ngeen jëf ñu sant ñëpp sant ñëpp di baalu yàq baalu wàq ñëpp baalu wàq ñëpp di ñaan ñëpp ñu baloonte yàq ñaan ñëpp baloonte yàq góorgóorlu ci kanam bu baax a baax góorgóorlu ci kanam bu baax a baax suñu kem kattan suñu kem kattan jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf